wasalaatu wasalaamu ala almabuuthi rahmatan lilaalamin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wajcal kalaami raashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida anta alladi allamta luqmaana alxikam wa liyahab bilmustafa xayra siyam mbokk yi ginnaaw bi ñu santee suñu borom tabaraka wa taala julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ñaanal euh, xalifatul am cheikh muhammadul muntaxa mbàkke yàlla ko fi yàlla bàyyi di ko ñaanal itam xalifa ba ca Tiwaawan sëriñ Babacar Sy Mansour ak mbooleem kilifa diine ci réew mi yëpp rek ñu ngi leen nuyu di leen ñaanal jàmm ak xéewal ak sutura ñëwaat nañ ci seen ñaar fukkeelu émission bi nga xam ne moom lañ leen amal mu jëm ci boore alquraanul karim yi ñu ànd kook sëriñ Maxtaar Kébem Cheikh Salif Mbacke ngir ñu yàgg ànd ak moom ci boole bi ñu ko tàmbalee ba tey di borom xam-xam laabir ci loolu itam di ko ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal tawféex ba yéeneem ci alquran ak xam-xam ak liggéey bi ñuy def itam yàlla ko yàlla mottali itam fekke ko di ñaanal El Hadj Serigne Seck mi nga xam ne mooy compagnie Serigne Seck Sénégal mi nga xam ne moo jàppandal émission yi ba ngeen mën koo am ci euh, plateforme yu wute yi waaye di ñaanal ñi nga xam ne itam ñooy coordonné liggéey muy El Hadj Fallou Seck ak Serigne Dame Touré fàttewuñu itam waa yaatal mbindum alquran yëpp ci njiital imam Khadim Ndiaye ak borom xam-xam yi fa nekk yëpp fàttewuñ kenn Serigne Moustapha Diop Serigne Mbacke euh, Serigne euh, Serigne Sam Mbacke ak ki nga xam ne mooy sëñ Mbacke Abdourahmane sëñ Cheikhouna Mbacke Abdou Wadoud mboolem ña fa nekk yëpp rek góor ak jigéen soxna maam Awa Dem fàttewuñ ko ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu fàttewuñu itam suñu technicien bi nga xam ne mooy jàppandal bagage yi ba ngeen mën cee jot muy vidéo yeeg yu ci aju muy Serigne Moustapha Sarr di ko ñaanal tawféex di ko ñaanal gudd fan ak wér liggéey bi fépp fu ñu koy séentu rek yàlla nañu ko gis bu gën a kawe Serigne Makhtar ñëwaat nañ ci beneen numéro muy ñaar fukkeelu numéro tey yaakaar naa mooy suñu ñaar fukkeelu émission bi ñu ko tàmbalee tey ñu war a ñëwaat ak euh, ñi ñu sa topp di ñu seetaan ci seen YouTube Yaatal Bindul Alxuraan ci émission a yi nga xam ne moom lañ leen xamal weer wu jot laataa ñuy dugg ci waxtaan wi dañ lay bàyyi rek nga def nañ ko daan defee nga nuyoo bu nopp ñu doog a dugg ci waxtaan wi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatulah ñëpp tey siyaare ñëpp am leen nuyoo bi ci saaxibul fadila wal xilaafa cheikh mahamadul muntaqa hafidahullah wa raa amin wa waffaqahu wa tawalla ñi ngi teg yoon murid waaye di nuyu suñu mbokki ci waawoon yi tàmbale ko ci xalifa ba ba ca mbokk yëpp ñu ngi leen di siyaare kon waa di nuyu alaaj Serigne Seck ñu jiital C3S ak banqaas yi C3S fu ñu mën a nekk ci réew mi ñu ngi nuyu ñëpp day siyaare ñëpp tàmbalee nuyu ci alaaj Serigne teg ci Serigne Fallou Seck teg ci Serigne ko waxee léegi waaye ñëwaat ci suñ mbàkki surang mi nga xam ne suñ mbokk daara la ñu tàqali ko léegi ci beneen émission door a sof ci sëñ mi moom it ko ziare moom mi nga xam ne mooy sëñ Omar Silla borom émission boole di nuyu sëñ Moustapha Sarr di ko siyaare moom technicien bi di siyaare ñi nga xam ne nag ñooy waa daara fu ñu mën a nekk ñi yónnee seen i kaddu ak ñi seen i kaddu mënut a bu ñu ko safoo ak ñi ci war a tàbbal seen xalaat ak seen i xel yëpp bàyyiwuñ kenn ñu ngi nuyu ñëpp tey siyaare ñëpp. jërëjëf jërëjëf sëriñ Maxtaar ci nuyoo bu am solo boobu di gërëm ñi nga xam ne itam ñi ngi topp émission yi fàttewuñu wàcc na ba sëriñ Talla Seck euh, sëriñ Adama Seck boog fàttewuñ Aline Fall fàttewuñ Alaaji Ibrahima Wade ca Tëngéej ak mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi suivre émission bi di leen ñaanal gudd fan ak wér sëriñ Maxtaar suñu laaj bu njëkk tey jëm ci wàllu boole yi ki xamul boole nag tey gis ñuy bind boole ci biir émission bi mooy baat yi nga xam ne dañoo nuroo te bokkuñu fu ñu nekk wala baat yi xam ne ñoo bokk nuñ daanoo te bokkuñu ñu nekk boolewu xaraf am na boolewu baat am na ñu xam ne baatu boole bi loolu la ci jublu pour yow mi koy seetaan nga xam li ngay seetaan lan la ak boole bi lan la lan lañ ci jublu dëgg-dëgg ndax boole rek mooy jël ay mbir boole waaye lan lañ namm ci boole bi dëgg-dëgg loolu lañ ci namm di fàttali wax Sëriñ Saalif Mbàkke bi daan na wax ne alquran bu dee ab tool la boole mooy li ko ñàkk ba tool bi wurul kon loolu ñu koy fàttaliwaat ñi nga xam ne ñu ngi topp émission yi. sëñ Maxtaar suñu laaj bu njëkk tey ci wàllu boole mooy salaa galandoo ndogaan. salaa galandoo ndogaan njànnaay njànnaay mooy juróom-ñeent. qul inna salaati lan am wa ma kaana salaatuhum lan faal bi salaatika lisraayi xad alima salaatahu nuur salaatihim juróom la ñu tënke ko lëmu sasamu lan am muumin mooy lëmu sasa mooy ñaar saala mu mooy jenn maamoon bu ci nekk foofa salaa liif ak laam la fay doon du doon salaa gawar waaw mooy galandoo ndogaan dafa galandu dog bu dugul nag salaa googu waaw day nekk ci suuf alif tiim ko mu xëcc laam nga ca gannaaw mhm. kooku mooy salaa gi nga xam ne gawar waaw gi salaa nag galandoon ndogaan la laam alif rek ngay def mhm. ak taa dem sa yoon mhm. amul waaw amul gawar waaw tënk bi ko bañ ñu tënk lu lu ko bañ ñu tënkee njannaay muy juróom-ñeent njannaay jërëjëf fali na salaat yi lan am wa maa kaana salaatuhum lan faal bi salaatika lisra yi xad alima salaatahoo nuur salaatihim juróom lañu ñu tënkee ko la mu sasamu la mu sasamu laam gi mooy lan am miim gi mooy moomin sax sax mooy ñaar saala la jenn maaxoon muy mugg mooy maaxoon la mu sasama jërëjëf la mu sasama moom lañ ko tënkee waaw ah. muy njànnaay muy njànnaay jërëjëf sëriñ Maxtaar ci leeral yu am solo yooyu jëm ci salaa galandoo ndogaan ñaareelu laaj bi mooy dende sidda ndende sidda juróom yaar ndende sidda mooy ñaari sidda yépp dañoo dend comme ni ma dende ak yow dara dox suñ diggante mm-hmm. mooy ndende mm-hmm. ñu ne ndende sedda juróom yaar mm-hmm. la ma na njóobu siin sa ak noon nga dañoo ndende ca sedda ga fala na xussan na laaraaf idraawatun na mbargaan ndax deel gi dafa wan na ci taa tombe ji taa tombe gi sàdda noonu ko sàdd idraawatun na mbargaan wala tamuddan na yaar la xijirek tëhi uman yukurihunna nuur la yu wallunna xasri mooy yii mooy juróom-ñaari ndend yoo xam ne bu ci nekk dafa sell ndax ba ma yukkure mun na jooju mhm. ñaari haaka biir yi dend genn haaka biir bu njëkk ga dañ koy tomb tuxal maaska ga muy ak sàdd ca haaka biir gu mujj ga ba noppi di sedd sàddawaat moom ga mooy may yukkure mun na loo tax mu sàdd jërëjëf bi ngeen ndend nag sama xel daa ci aw boole yàgg yassa day ndende man mooy dafay dend ndox rek tasa day ndende yettasa bañ ndende tatasa bañ ndende tasakkaroo lan raaf man tasakkara fand ak bañ ndende yaar bañ ndende yaar jërëjëf macha allah sama xel laa dem ci boole woowu jërëjëf sëriñ Maxtaar ci baatu ndende shidda googu sëriñ Maxtaar suñu ñetteelu laaj bi mooy illa iblisa juróom yaar juróom ñaar la ñëw ci alquran fu mu nekk abee laam baqara abee hijri abee tahi tahi mooy mooy mooy koo bañ abee naayo mhm. ñeent mhm. lam yakun la araaf qaala lisraai kaana njenge istakbara njomba ilaa iblisa qaala ilaa iblisa kaana ilaa iblisa istakbara ngay dégg waaye doodu ilaa iblisa abee ñu ne ilaa iblisa juróom-ñaar abaalaan abaa hijri abee tahi mën a abaalaan abaa abaa hijri abaa tahi mhm. yooyu yëpp ilaa iblisa yëpp day ànd ak abaa bañ abaa nag naayo ilaa iblisa lam yakun la araaf mu ne lam yakun la araaf qaala nje lisraai ilaa iblisa xaala ma nga lisraay kaana ilaa iblisa kaana ma nga njeng ilaa iblisa stakbara wa kaana min al kaafiriin naa nga njomba yooyu ñeenti ilaa iblisa amu ci benn buy ànd ak abee moo tax ñu ne ilaa ñeent lam yakun lahraab xaala lisraay kaana njeng stakbara njomba xam ne indi na yi nangu ndende ak yi bañ ndende ma ilaa iblisa yi ànd ak abaa ak yi bañ abaa yëpp andi na leen jërëjëf ci illaa iblisa ak euh, leeral yu am solo yooyu nga ci indi sëñ maxtaar suñu ñeenteelu laaj mooy wa an chamailihim dañ ne wa an chamailihim la araf wa an chamaili namli mboccoor ma yaar muy siin sa day tooy rek la bëggoon a wax looloo indi mboccoor ma yaar waaw jërëjëf sëriñ maxtaar ci boole bu am solo boobu euh, tukki ko ci wa an chamailihim suñu juróomeelu laaj mooy libaasu jorngel libaas jorngel sab muy fukk la ku yoon la ñëw libaas yi nga xam ne siin su wow la nee na fukk la libaasun yaar la yépp a nga laan libaasahumaa nga laxaraaf libaasan yett la ñu tënkee ko lafuna laxaraaf furqaan naba in muy lafuna muy lafuna libaasa taqwa laxaraaf libaasal jooxi nam li wa libaasuhum ndax sala sola libaasal jooxi nax li wa libaasuhum yaar la xajjeeg faandaak mooy libaas jorngeen faandaak mooy suuf faatar jërëjëf macha allah ci leeral boobu jëm ci libaasu jorngel sëriñ Maxtaar ci suñu juróom-benneelu laaj muy rusuluna rusuluna léew rusamaan rusulu te bañ a nekk la bañ a nekk li mooy léewur mask ak lonk juróom-ñetti yoon la ñëw ci alquran mhm. rusuluna léew rusamaana te wafathu rusuluna lana am jaatuhum rusuluna yaar la njóogoog laaraaf muy maayida rusuluna naayo la muy ñeent yaar hóor yaar xanka xanka booti balaa wa rusuluna ca soxruf suratu zuhruf mu allah kon fukki yoon la ci alxuraan jërëjëf sëriñ maxtaar euh, suñu juróom-ñetteelu laaj wala juróom-ñaareelu laaj mu ngi ci faddaaratum dañ ne faddaaratum laan sàddaakum naar daal ga day sàdda liif ga ca kanam day naar liif ga xëcc daal ga ko ñuul daan ñu ne fa daaratum laan saddaakum naar xatta ida daarakoo la araaf saddaakum ñuuleen daa la de daa sadda de waaye liif ga day ñuul wuute naa ga ca laan googa daa xonq fii mu ñuul fi balit daaraka nam li saddaakum naar kon balit daaraka ak fa daaratum ñoo bokk ndey baay daa sadda ba noppee day naar waaye nag law laa anta daaraka hoo ca xale mi naar laa ko jam-jam mooy liif ga day naar te mhm. ku daal ga daan jërëjëf moo waral naara laa kum jam-jam ah naara laa jam jërëjëf jërëjëf suñu maxtaar ci leeral yooyu ci faddaara tum euh, ñu fàttali ne boole yi ngeen gis boole la ci bàllu baat ci kalima bi boo xoolee kalima bi lay lay indi boole yi am boole boo xam ne boolewu xaraf la xam naa dinañ am émission boo xam ne spéciale pour loolu la lan mooy boole boolewu xaraf ak boolewu baat ndax am na ci loo xam ne dafa laal tuuti ci naxu sëñ maxtaar euh, xam naa li may wax xam na ko baax baax jërëjëf sëñ maxtaar suñu juróom ñeenteelu laaj mi ngi ci bi chimaahum bi siimaahum juróom bokkuñ bindiin bi siimaahum juróom bokkuñu bindiin bañ yaar la yépp nga laxaraaf bi siimaahum ci laxaraaf yépp day am bañ bañ bañ ba yett la laan xitaal bayaan boo fa demee bi yépp benn amu ci bañ bayaan mooy suratu raxmaan mooy raxmaan macha allah macha allah jërëjëf sëñ Maxtaar ci leeral yooyu jëm ci bi suñu juróom-ñeenteelu laaj nag mooy wahdahu tongu wahdahu tongu mooy juróom-benn li na'buda allaha wahdahu tongu la xaalonk la ma nga la fi alqur'ani wahdahu lisra'i wa ida dukira allahu wahdahu zumar ida du'iya allahu wahdahu ak amanna billahi wahdahu xafraan waxdahu illa qawla ibrahima ca limti loolu mooy waxdahu tong bokk tam waxdahu bi def ab dël baatu limti moom loo ci jublu mooy limti xaan limti xaan suratul imtixaan ñu ne limti suratul limti anka boota ñu ne anka hmm, am dañ ko daan dagg dañ ko daan dagg tarxim ko macha allah sëriñ maxtaar suñu laaj bu mujj nag mooy sammaytumuha sammaytumuha yet ñu ngi koy tënkee labana laraaf la ak mbargaan ak nañ sammaytuha ba jóg gallaay sammaytuha rek moo nekk ci su Ali Imran gallaay mooy mooy Ali Imran mooy Ali Imran hmm. inni sammaytuha Maryam wa inni a'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytani rajim hmm. macha allah jërëjëf Serigne Makhtar Kébé moom Cheikh Salif Mbacké mbokk yi émission boole yaa ngi di ñaaxaat suñu bopp di ñaaxaat sëriñu daara yi xam-xam bu bu raara ngi nii te ñi ko mën bëreetul nga la alquran fa bokkoon ci charme yi ko mag ñi daan garder yéen ñi nga xam ne yéen a ngi koy topp jël leen seen biir ak seen fooy lépp luñ ci rotal ci boole yi ndax ñi ngi tàmbalee woon baqara noonu lañ war a ñëwee ba minal jinnati wan naa si insha allahu rabbi dara du leen ci umpu ci wàllu boole yi suñ Maxtaar ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal gudd fan ak wér yal na yàlla yàlla barkeel la dëgg yàlla xam-xam bi ni nga koy joxe rafet na trop ba mu noppi ànd waaye di ñaanal tamit compagnie Alaaji Sëriñ Seck mi nga xam ne mooy jàppandal waxtaan wi bañ mën ko tasaare ci euh, jumtukaayu xarala yi di ñaanal alaaji Fallou Seck ak sëriñ Dame Touré mi nga xam ne ñooy coordonné liggéey bi yal na yàlla jàppale leen yal yàlla suturaal leen ci barke alquraanu karim di ñaanal suñu technicien sëriñ Moustapha Sarr ci euh, vidéo yu am solo yi nga xam ne moo yor technique bi waaye di gërëm suñu xarit suñu wëllëre sëriñ Mbacke Sourang ci émission bi nga xam ne moom lañ tuddee yaru ak yare di ñaan la ko ñëpp topp ndax njëriñ kese moo ci nekk kuy yare mën na cee jëriñu kuy jàngale mën na cee jëriñu képp ku jiite mbooloo rek ay ñu topp sa ginnaaw émission boobu sa émission la kon in uridu id suñ mosaa nataa njëkk jotaay bi yan kàddu ngay tëjee incha allah di ñaax sama bopp di ñaax sama mbokki daara ndax mm-hmm. émission bi moom ñun rek la itteel mm-hmm. nañ ci gën a góorgóorlu bu baax rek ndax bañ tàmbalee léegi ñu ngi bëgg a sore ku doon amit lee am lu bari te la des dig nañ leen ko mm-hmm. asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi émission yi bi ngeen ameloon mu ngi noonu tey muy seen ñaar fukkeelu émission nga xam ne moo jëm ci boole alquranul karim yi in uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh rahmaani rahim nuun wal qalami wa ma yas